jërë ngeen yi ne ngalañ ci kanamu gaynde yi démb ci quart de finale na daanaka ci li ne kay tey yëral xët li mu bind moo di Sénégal wulli na Guinée équatoriale ñetti bal ci benn jàll ci demi-finale ya rëbbukat bi di Famara Cheikhou Kouyaté ak Ismaïla Sarr ñoo dugal ñetti biti Sénégal yi war a daje ci demi-finale yi nag ak Burkina Faso ginnaaw suba ci àllarba ji bu sept ci ngoon jotee stade yi ne kay feelu ko ba dañu xamal ne gaynde Sénégal yi fa ñu bëgg yegg wàcc guñu yoon wi démb lañu ñu wulli waa Guinée équatoriale wulli yu rëy ñetti bal ci benn l'observateur nañu Aliou Cissé ki gaayam ni ko jàppoo démb bu takkul coupe bi Sénégal la jëm si football nañu rëy teg ko ci diggante maturité tactique force de caractère ak équilibre surnaal lay fa nañu waa Zalang national di waa Guinée équatoriale yi ak nañu rakkaaje woon ci coupe d'Afrique bi gayndee Sénégal yi suqi nañu seen i laaf démb surnaal bi teg ci tegal yu ci xëtamu njëkk kadduy entraîneur bi di Aliou Cissé kadduy Sadio Mané yu Cheikhou Kouyaté yu président Macky Sall yum leen di félicité ci ndam li yu ministre Matar Ba ak kadduy Obiang Bikogo mi tàggat Zalang national yu Guinée équatoriale yi suur nañu footballkat yi Sénégal yeeg yox yoxi gi ñu nekkee woon ci coupe d'Afrique bi bàyyi nañu ko gaynde yu pàdde la ñu gis démb seen digg Guinée équatoriale ñëw nañu dëggal seen bopp tegal gaañu lu mitti gañe leen jàll ñu jàll ci laas yéene kaay fekkaat fa xibaar bi ba tey ci xëtt mu njëkk mi ngi ñuy xamal ne ay gaynde yu dalum xel la gis démb Sadio Mané ak i ñoñam écarté nañu zalang yi ba dem ci demi-finale yi Burkina Faso la ca war a am Vox Populi nañu Aliou Cissé ki ñoñam war a am ci demi-finale match boobee du yomb beneen taxawaay la laaj beneenub xeex la laaj Sud Quotidien di ñu xamal ci xët bu njëkk ne Coupe d'Afrique Cameroun 2021 Sénégal ma nga ca carré d'as ba Soleil national nañu coaching bu baax moo ñu ko may journal Le Quotidien moom leneen la xëy ci xët bu njëkk mu di ay xibaar yu jëm ci jàppante ba woon ca Gambie ci diggante soldats yi Sénégal yi FUPMFDC yi mi ngi ñuy wax ne la ca l'armée Sénégal ñàkk gëj na koo ñàkk ci jàppante a lalal tey seen loxo génn ci jàpp nañu ne ñooy ñi jàppale fipp yi ba tax ñu jekku soldaar yi ci yëf yi ak ñi ca jëlee gaañu gaañu le quotidien mi ngi ñuy wax ñooy ñan li andi coow li mu di àllu Casamance bi ñu dagg ci lu dul yoon di jël bant yi di yóbbu réew mi quotidien nee nañu kii di Ali Haïdar newoon fii jamono ministre de l'environnement xam na ca lu yéeme te doy nee na at mu nekk lu mat juróomi junniy conteneur dinañu bàyyeekoo Sénégal yàpp ay bois ba mi ngi ci les ko ubbi di bi kër gi ñu fi taaloon ca Kër Massar ci jamonoy campagne bi ñaar ñi ci jële woon yi lakk-lakk yu miti yéenekaay bi na ne nañu kenn ka mujjee na faatu mu di xale bi amoon ñetti at mu di mbir moom it journal bi jàpp na ne nar na gën a compliqué le kaaw Dieynaba bi ñu ciy tudd ci contrôle judiciaire ca la nekk waaye bu mooy tool yoon di justice du yem ak moom foofu libération nañu Bébé Talla Sall tolloon ci ñetti at moo far faatu maamam ji ci lakke woon moom it am juróom benn fukki at ak juróom ma ba léegi nekk ci diggante dund ak